sunu euh, invité euh, mi journée tey ñi ngi am mbégte di dalal Abdou Khafor Touré nekkoon directeur général bu ANEJ ANEJ di agence nationale pour l'emploi des jeunes jamono ji nag euh, mooy directeur CJS SA nekk aussi responsable APR ca Guédiawaye Khafor ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Pierre Edouard di am mbégte teew fii ak yow ci. Euh, plateau bi pour commenter actualité bi nga xam ne nii moo moo moo nekk ci réew mi. actualité bi mooy euh, immigration clandestine bi Barça ak Barsak bi ñu xamoon ci atum 2005 2006 dellu si euh, li gën a nag tax sax mbir mi gën a garaaw mooy gaal bi nga xam ni dafa explosé jóge woon fële fii ci Sénégal bëggoon dem fële ca Espagne lu toll nag te bilan boobu sax bilan provisoire la ñu ngi naan lu toll lu ëpp sax vingt personnes ñàkk nañ ci seen bakkan ndax nee nañu bateau bi gaal bi peut jëloon na sax lu toll ci cent quarante personnes alors information boobu ba nga ko yéegee yow naka nga réagir woon. waaw euh, bi ma ko yéegee am na naqar comme ñëpp euh, mu nekk loo xam ne ni lu metti euh, mu mesurer aussi ampleur bi ak conséquences yi nga xam ne ni mën na ko am. Euh, ma jàpp ni parce que fan yii yëpp comme man damay gëstu tuuti li nga xam ne nii moo xew ci secteur boobu di ko suivre euh, nekkul loo xam ne nii bett na ma parce que phénomène bi ñun ñi xam xam nañ ñi phénomène bi reprendre na depuis fan yi ci gannaaw euh, ñu ngi ci kawoon commencé di wax di wax naka la ñuy naka la ñuy fexe ba lii est arrêté wu balaa ji di di ñëw. lan moo taxoon mu reprendre donc Covid bi daa taxoon wala la. waaw noo xam nga euh, phénomène bi euh, dafa nekk loo xam ne nii lu doy waar euh, lu doy waar loo xam ne nii buñ si wax parce que ay nit ay xale ay ndaw ñoo ci génn àdduna ñoo ñàkk seen bakkan tey dañuy nekk seen place waxuma ñoom. mais seen place ay famille seen wayjur euh, seen i mbokk ñi nga xam ne nii peut-être sax seen doom génn na àdduna te xamuñu ni génn na àdduna euh, li tax mu reprendre nag mooy explication yi mën na bari euh, mooy boo xoolee gaal yi ñoo reprendre ak gaal yi ñoo reprendre depuis fan yee ci gannaaw ci yenn zone yi lu mel ni Ndar lu mel ni yaraax lu mel ni kayaar est-ce woon na sax gaal yi euh, non yi arrêté woon na parce que xam nga phénomène bi phénomène gaal bi mu ngi tàmbali woon 2005 2006 bi mu tàmbalee mu nekkoon phénomène bu bees ci àdduna bi mais nit ñi daan xale yi ko daan def 2005 2006 dañ daan yegg Espagne donc problème bi ba muy tàmbali 2006 nit ñi dañ daan yegg Espagne boobu problème mu Europe la woon problème Union européenne la woon donc il y avait yaa ngi dégg nit ñi dañ doon yegg donc boobu tubaab yi dañu ñëwoon fii fekk si ñu pour ñu ànd lëkkaloo trouver ay solution parce que ñoom ils avaient un problème sécuritaire euh, nit ñi xale yi ñu ngi doon yegg si foofu donc ñu liggéeyoon ensemble bi ñu liggéeyee ensemble Frontex voilà ci lañ teg ci lañ teg ci lañ teg ci solution yi ci solution yi euh, encadrement Union européenne bureau international du travail ñu ne noon solution globale d'abord solution d'urgence mooy prévention mooy sensibilisation euh, mooy renforcement de la sécurité muy Frontex mais le problème ne pas sécuritaire le problème ne pas sécuritaire donc Frontex européens yi affaire boobu moo leen intéressé woon affaire sécurité ñun ñi nga xam ne nii ñoo yoroon fii wàllu xëyu ndaw ñeeg wàllu politique jeunesse ak emploi ñu gënoon nekk ay ndaw boobu comprendre problème yu comprendre xale yi ni ñu doon xalaatee ñu ne leen su ngeen bëggee problème bi réglé ko du problème mu sécurité kese dafay nekk problème ngeen jàppale ñu tamit ñu mun a gën a yokk jumtukaay yi nga xam ne nii jagleel nañ ko suñu ndaw ñi fii ci utum xëy ci liggéey ak ci formation ak ci li nga xam ne nii mooy migration légale parce que bu fekkee ne dañu tëj ambassades yi joxuñu xale yi visa xale yi nañu ut pexe yu ñu demee donc nañu fexe yéen aussi en terme de solidarité ñu fexe nu ñu renforcer ndaw ñu mën a dem li ñu wax li ñuy wax migration légale nga xam ne nii bu ñu demee ci ambassades yi am ay kayit ñu mën leen may visa mm-hmm. donc solution yu mel noonu lañ defoon allié structurel bi allié réinsertion sociale bi allié politique publique renforcer structure réponse yi au niveau euh, loolu nag ak xeex boobu bi ñu ko defee problème bi arrêté woon na totalement et définitivement non arrêté woon na non arrêté na non arrêté na parce que boobu Frontex bi dañ ko tàmbali européens yi def ko au niveau de leur côte des côtes marocaines espagnoles ensuite ñu wàccee ko ba Europe fii xale yi mënuñu fi woon jàll def ko aux alentours des côte sénégalaises donc surveillance côte yi gaal mënatu fi woon jóge donc arrêté woon na ensuite ensuite non non non non mais ensuite. ensuite ensuite à partir de. à partir de 2012 2013. xale yi génnee yeneen pexe ak yeneen yoon xale yi commencé jël yoonu suuf bi bàyyi yoonu géej bi mais jël nañ yoon mais ñu ngi yoon ci yoonu suuf bi ci yoonu suuf boobu xale yi ñu ngi doon dem jaar Mali jaar Niger jaar dem Libye gis nga problème yi am Libye. moo freiné gis nga li nekk ci migrant libi kenn xamul ak su xale yi dee ci désert bi loolu xam nañ ko nit ñi liggéey ci ba loolu mu estompé donc jamono yi depuis ci Covid bi c'est vrai le dispositif y avait un relâchement problème yi am ci napp gi problème yi am euh, ci ci problème mu. surtout napp bi euh, napp bi. parce que phénomène bu bees bi mooy nappkat yi Sénégal. Euh, effectivement effectivement effectivement effectivement euh, effectivement nga xam ne nii dafay am ay criminel ñu mun leen tuddee ay criminel ñuy jël di nekk ay rabatteur di jël ay ndaw di organiser ay gaal ne leen mën nañ leen yóbbu Espagne te ñoom. Euh, gaal yi duñu ci dugg donc muy am ndaw yoo xam ni waaw waaw mu ñu ñu ci dugg loolu moo indiwaat problème bi donc loolu problème bi nekk fi mais yu mel nii bu jógee xam nga wax ju bari du ko laaj li muy laaj mooy boroom xam-xam yi seen màcc yi seen xam-xam màcc ci mbir moomu parce que bariwul ñu seen xam-xam màcc si mbir moomu parce que homme politique yi ñu ci bari xamuñu ci affaire jeunesse ci affaire emploi ci affaire insertion ci affaire migration. xamuñu ci lu bari non non non non non les hommes politiques. Hmm. malheureusement te dama koy wax avec ni ma ko xalaate ñi ci maîtriser ci Sénégal wala ci Afrique même ci affaire jeunesse ci affaire emploi ci affaire insertion métier la expertise la dafa am lu mu laaj. bariwul donc. te pourtant Sénégal loolu fond de waaw moo tax ne moo tax xamuñu moo tax xamuñu moo tax xamuñu moo tax xamuñu c'est des problèmes qui sont extrêmement sérieux c'est des parce que ñun suñu problème suñu réew problème central bi mooy problème encadrement jeunes yi formation jeunes yi insertion jeunes yi insertion durable jeunes yi parce que dañu am population bu jeune boo amee population bu jeune téeméer yoo xam ne nii téeméer boo am juróom benn fukk ak juróom ñaar am nañ moins de trente cinq ans loolu problème la euh, ñooñu nag nga xam ne nii ci biir ñooñu li gën a important mooy jeunes yi nga xam ne nii dañu am entre quinze ans ak trente quatre ans nga xam ne nii si ñun jeunes yi nga xam ne nii ñoom ñooy moitié population sénégalaise jeunes yi nga xam ne ñoo am quinze ak trente quatre ans mais ci biir moitié population boobu dafa am ñoo xam ne nii amuñu amuñu amuñu amuñu qualification amuñu xëy. amuñu formation amuñu encadrement loolu nag soo ko bëggee régler dafa am doo ko régler ci weer doo ko régler ci at doo ko régler ci ñaari at doo ko régler ci ñetti at loolu yëpp nag gouvernement Sénégal mu ngi ciy liggéey hmm. ay la yowén ah. Sénégal mu ngi ciy liggéey ci jumtukaay ñu ngi ciy liggéey bu baax parce que huit ans après euh, non solution am na solution yi solution bu amoon nañu dinañ dem non seen bopp non non solution am na ay la yéwén li nga xam ne nii mooy programme ak solution yi ñu teg muy Prodac muy muy yóbbu ndaw ñi ci ñu liggéey ñu intensifier ko muy muy euh, formation professionnelle muy fonds financement de la formation professionnelle euh, nga xam ne nii ay milliards lañu lañ ci dugal nga xam ne nii tey ba ñuy 2012 man bi may jógee ci secteur bi suñu budget programme yeeg projet yëpp ñu ngi woon aux alentours de vingt vingt cinq milliards tey li nga xam ne nii mooy budget projet ak programme yi yegg na cent vingt cinq wala cent cinquante milliards ci li nga xam ne nii moom lañ jagleel ndaw ñi ci insert non non non c'est dans la réalité sur le terrain et dans la réalité sauf que et dans la réalité sauf que et dans la réalité sur le papier et dans la réalité non sur le papier et dans la réalité sauf que quand vous avez trois cent mille jeunes yuy ñëw ci marché de l'emploi chaque année nga am population jeune mu am trois cent mille jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi nga am euh, sa économie di créer à peu près soixante dix mille quatre vingt dix mille emplois da ngay am stock bu am solo boo xam ne nii lépp looy def pour insérer jeunes yooyu doyul donc lépp loo xam ne nii ñu ngi koy def pour insertion insertion jeunes yi dañ ko war a yokk tey kon dañ war a yokk sensibilisation bi dañ war a yokk information jeunes yi dañ war a yokk moyens yi nga xam ne nii ñu ngi koy def ci secteur bi et dañu war a yokk surveiller ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci secteur bi ñu jël ko ak sérieux xam ne c'est un secteur sérieux c'est un secteur boo xam ne nii il y dépend de l'avenir de la nation parce que euh, lii moom kenn mënu ko justifier et je pense que c'est dramatique je pense que président am na lu ko metti parce que gis na démb message bi mu def jaale euh, ndaw ñi ak askan wi parce que Euh, kéemtalaay kattanam. mu koy def du ay message pour jàllee li ñu soxla mooy solution yu concrète. non les solutions sont là non non non non candidat en 2012. non dafa promettre 500000 emplois. oui premier mandat. absolument jot na ñu ni voilà réussir nañu ko nit ñi gis nañu lu am sur le terrain. absolument deuxième mandat c' était à Guédiawaye la ko waxee woon. absolument mu ni 1 million d' emplois. lay lay dig yaakaar nga ni emploi yooyu bu yemb ndaw yi tey dinañ dem. mais parce que xam nga quand tu as sur le quinquennat un objectif de création de 1 million d' emplois mooy li ma la wax sànq. c'est d'arriver à avoir une économie qui crée 200 000 emplois buy créer 200 000 emplois par an xoolal tey suñu économie li muy créer ak li nga xam ne nii politique yi politique un de grands travaux état bi mu ngi koy def euh, les chantiers sort et donc loolu c'est pour augmenter oui mais no non non non non pas pas ñuy indi je donne juste l'exemple de la de de du euh, euh, train express régional c'est des ouvriers sénégalais ñoo koy liggéey soo demee chantier yi fi nekk yëpp ay ouvrier ouvrier sénégalais non peut-être au niveau qualifié ou d'ouvrier qualifié ñoom ñoo koy liggéey loolu benn la euh, ensuite tey en termes d'intensification et de retour des jeunes vers l'agriculture le programme des domaines agricoles communautaires plus de 80 milliards de financement loolu c'est une réponse structurelle le programme des centres d'incubation pour l'emploi des jeunes c'est une réponse structurelle nga xam ne ni 16 centres dans chaque euh, presque chaque département les maisons de la jeunesse les maisons de formation euh, euh, les les les centres de formation professionnelle et technique loolu yëpp dafa nekk loo xam ne nii lu ñu teg la mu am solo euh, effort yi nga xam ne nii def nañ ko de trente milliards chaque année sur le budget à travers la délégation générale pour l'entrepreneuriat le fonds de garanti de, des investissements prioritaires loolu yëpp jumtukaay yooyu yëpp soo ko boolee c'est des réponses ouais, mais la réalité la non, non, non. waaw ouais, mais il faut pas waaw mais d'accord mais sur le terrain non non la preuve non ndaw sur le terrain sur le c'est des c'est des initiatives qui donnent des résultats seulement seulement face à l'ampleur de la demande face à l'ampleur de la demande dañu war a intensifier le rythme de réalisation renforcer moyens yi nga xam ne nii def nañ ko ba pare nit ñi mën a travailler sur la durabilité c'est comme ça qu'on peut régler ces questions-là et je pense que le président il est dans ce sens-là c'est les orientations qui sont données maintenant les acteurs qui sont chargés de l'animation de ces circuits-là doivent donner plus de donner du tonus à leur à leur à leur à leur action euh, parler davantage aux jeunes dem sensibiliser ndaw ñi euh, ak jigéen ñi euh, ba nga xam ni dans les zones de départ ba nga xam ne nii. nii dinañ mën a wax yëpp dégguma si DER wax naa la DER nee naa la nee naa la trente milliards. nee naa la nee naa la trente milliards te ça ça je pense que ça c'est une provocation <laughs> journalistique mais la délégation à l'entrepreneuriat rapide est un instrument. non loolu loolu je pense que même dans la sensibilisation c'est quelque chose qu'il faut enlever de la mentalité des jeunes vous savez euh, yi fi nekk muy ANPEJ muy DER muy programme yi fi nekk yëpp du programme mu jeune bu nekk ci pouvoir programme pour sénégalais yi la bu benn sénégalais am blocage man dama koy wax parce que jiite naa juróom benni at wala juróom benni at ak genn wàllu ANEJ dama daan wax li ma jiite du ndaw du pro programme pour ndaw ñi nekk pouvoir parce que effectivement ndaw Sénégal yëpp a ciy bénéficier et souvent ndaw ñi nekk au pouvoir souvent sax duñ ci bénéficier wu souvent duñ ci bénéficier wu parce que les gens qui sont qui responsables de ces structures là parce que man bi may jiite ANEJ on me faisait ce procès là ba nga xam ne ni méngoowul ak la ma doon def méngoowul ak la ma doon def parce que dañu daan wax li ngeen yor pour ndaw ñi nekk pouvoir yi ce qui était tey aussi mën naa témoigner ni ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko jiite parce que liggéey naa FONGIP nekk naa directeur des opérations FONGIP te programme te li ma doon li ma doon li doon jaar ci man ci dossier parce que dossier yi avant ñuy dem muy dem comité d'investissement da doon jaar ci man te dossier yi ñu doon yóbbu comité d'investissement xamuñu ki déposé dossier bi nu mu tudd fu mu dëkk ak lu muy liggéey ak ban carte parti la yor donc loolu ñu koy wax ndaw ñi ñu bañ a am benn blocage jàpp ni li fi nekk pour ndaw pouvoir yi tenter leen seen chance ci jumtukaay yi nga xam ne nii ñu ngi ko teg jagleel ko sénégalais yëpp mais bañ a am blocage ni pour ndaw wala ku far ci parti pouvoir parce que loolu c'est pas conforme ak li nga xam ne nii moom moo am à la décharge de ce qui dirige ces structures bon c'est à ça reste à vérifier parce que ñun lu ñuy gis sur le terrain aussi euh, appartenance politique bi day am solo lool ci mm. day déterminant ci li tax ñu mën la financer mais drame yu mel nii bu amee souvent euh, dans les pays dit de grand démo grande démocratie nga gis président bi day monter au créneau def déclaration message à la nation et tout gis nañu France barki démb ba ñu fa rayee benn professeur rek Macron li mu fa def discours à la nation pratiquement la def ak cérémonie yoo xam ne daf koo kii est-ce que jàpp nga ne tey président Macky Sall daf koy jël parole wax ak askan wi. c'est pas les mêmes problèmes. c'est pas la même nature la les problèmes n'ont pas la même nature euh, France li fa xew. c'est un problème plus politique la prise de parole mais fii euh, c'est un problème nee naa la euh, drame bu mag la bu bu ñu war a traiter la avec le plus grand sérieux mais la prise de parole au niveau des pouvoirs publics dafa war a graduel le président il a besoin d'avoir tous les toutes les informations tous les éléments d'analyse euh, pour xam kañ la war a wax ak lu mu ci war a wax li am solo mooy am na ay jëwriñ am na ay ndaw ñoo xam ne nii ñoom la délégué ñoom la dénk ay responsabilité non no no non non ku nekk danga war a def sa liggéey président mu ngi def liggéeyam ñi mu dénk dañu war a def seen liggéey mais tout ça on doit l'apprécier euh, le moment venu président bu waree wax dana wax mais le président il prend la parole en donnant des solutions parce que sa responsabilité c'est de donner les solutions c'est pas oui le président non attends hmm? euh, président nag ah, Pierre Édouard nag président euh, non non non hmm? non non non non franchement ce qu'il a fait wax dëgg yàlla yàllaa tax man liggéey na juróom benn at ci secteur bi président Ablaye Wade am na loo xam ne nii lu am solo euh, mooy la la vision du précurseur parce que Sénégal 2000 amul woon lu ñuy wax politique publique d'emploi des jeunes mu imaginer la politique publique et les instruments ñu teg ko expérimenter ko ñun ñu nekkoon amoon la mission de des bâtisseurs ñu fondé loolu 2008 ñu évaluer indi deuxième génération projet et programme dugal ci ay moyen mais président Macky wax dëgg yàlla bu mu ñëwee li liñ fi tegoon. li ci baax yëpp daf ko renforcer mission d'évaluation yooyu li ñu waxoon dañ ko war a renforcer mu daf ko dolli li ñu waroon dindi mu dindi ko li nga xam ne nii li ñu waxoon wax naa la ko sànq ci wax ma ne la il faut ñu intensifier les programmes yokk allocation de ressources bi ak sensibilisation bi nee naa la en 2012 on était aux alentours de de 25 milliards en termes de financement de projet et programmes aujourd'hui on est aux alentours de 150 milliards téeméeri milliards ak ak ak genn wàll ak fan ak ak fan ak ak euh, juróom fukk ñu jagleel ko mais bu fekkee ni yow sa population presque lépp ndaw la genn wàll xaaj bi ndaw la nga war fa def ay moyens problème bi mooy solution yi baax na li ñu nekk di def nii baax na mais doyul baax na li ñu nekk di def baax na c'est des bonne réponses mais doyul li ñu war a def dañ ko war a renforcer parce que renforcer ko mooy tax mu mën a mat mooy li may wax mooy matul mais est-ce que solution yi baax na solution yi baax na keneen koo fi teg mënul def solution yu weesu yi nga xam ne nii moom la ñuy def parce que lan la mooy former ndaw ñi mooy def xaalis ci enseignement technique formation professionnelle créer ay jumtukaay ci boobu mooy sensibiliser mooy def prévention mooy créer ay lycée jàngal ndaw ñi mooy créer lu mel ni DER mun a teg ci état du Sénégal ak moyens ñu am nga jël trente milliards di ko jox en terme de financement mais loolu yëpp c'est mooy loolu mooy solution yi mooy teg lu mel ni programme domaine agricole communautaire ndaw ñi di dem ci tool yi loolu c'est les solutions di ko joxe nit ñi non rek parce que ñoo am problème sax def recours parce que non mais xaalis bu ñu lebaloon nit ñi ça c'est un autre type de problème ça c'est un autre type de problème mais l'État l'État a la responsabilité du traitement social du chômage c'est il faut des solutions structurelles mais lu mel ni DER nga xam ne ni c'est un traitement social l'État a obligation de le faire donc le traitement social si je dire la, le social du chômage c'est la responsabilité de l'État donc l'État il faut mu def ay efforts donc li am solo mooy loolu ñu yokk ko ñu intensifier ko donc nañu yokk loolu ñu intensifier ko mais les solutions sont bonnes mais faut elles ne sont pas suffisantes en termes de portée parce que bu suffisante oon en termes de portée kon lii du am ça c'est une vérité et une vérité elle est à accepter et elle est à dire donc loolu moo am loolu mooy dëgg mais na nañu euh, ñu ci war a wax nañ ci wax ñu xam ni du problème politique du problème état problème mu société la parce que aussi il faut que. ku nekk intérêt non il faut que. président bu mu bëggee fàllu fii bu mu bëggee fàlluwaat loolu loolu loolu parce que président loolu la fal loolu mu ngi ci loolu loolu la diggee. mu ngi ci loolu la diggee parce que mu ngi teg programme euh, politique am une politique keynésienne tey le programme des cent mille logements nga war a dafa intensifier la main la la la la la la la la, euh, la, la résorption de la main d'œuvre xam nga créer de l'emploi euh, les infrastructures les grandes les grands pro les grands projets la non non non mais la politique de grand c'est-à-dire que l'État l'État par l'investissement xam nga li muy def dafay entraîner la la la la la la la la création des programmes des programmes générateurs d'emploi état bi mu ngi ci loolu ak li nga xam ne nii économie bi le dispositif incitatif bi nga xam ne nii moom moo war a créer emploi yi loolu tamit ñu ngi si seulement on a une économie qui n'est pas extensible en termes de création d'emploi à souhait donc loolu yëpp c'est un travail de euh, boo xam ne nii de longue haleine qu'il faut faire euh, euh, def ko ñi ñëpp ànd ci mais bu fekkee ni débat politicien bu stérile bi saaga xaste waxti c'est pas ça qui règle les problème donc c'est un problème où chaque sénégalais ñu war a interroger wu papa ci biir kër yaay ci biir kër doom ci position ak pression bi nga xam ne nii ci pression tekki boo xam ne nii teg nañ ko ci ndaw ñi parce que aussi nous avons une société bi nga xam ne nii c'est une société très violente par rapport ak sa jeunesse par rapport ak ndaw rapport bu ñu am ndaw bu nekk ci kër gi ndaw bu tekki ndaw bu tekkiwul ndaw bu arrivé à quelque chose non non non c'est pas jom mais notre société aussi est très violente ça c'est des vérités moo tax ma ne la ces problèmes sont des problèmes très complexes il faut interroger il faut que nit ñi ñuy parent yi prété attention ci seen doom yi prêter attention ci psychologie doom yi prêter attention ci xale yi ni ñuy xalaatee ak li ñuy nekk ñu dalloo conseiller xale yi wax xale yi que àdduna du yàkkamti ndànk-ndànk la étape bu nekk boo ci tollee la nga war a def nga def ko c'est extrêmement important étape bu nekk boo ci tolle la nga war a def nga def ko li ci des lépp lu war a ñëw dina ñëw mais ils n'ont pas besoin de mettre leur vie en péril en prenant la mer parce que boo yeggee Espagne tamit réfugié ngay nekk boo yeggee Italie tamit réfugié nga nekk boo fa demee tu vois des milliers et des de sénégalais yoo xam ne nii ñu ngi ci mbedd mi di taxawalu wala di ñaan wala di yelwaan te loolu toog fii gagner ta vie dignement moo ko gën. c'est-à-dire que la sensibilisation. non je me lève Pierre-Edouard la vérité dëgg bi ñu war a wax suñu ndaw ñi mooy nekk sa wetu pap nekk sa wetu yaay nekk sa réew même boo doon am ñaar fukki junni. moo gën dem nekk Europe soo xëyee cent cinq jours su sur cinq jours ña nga am seen problème jàppalewuñu la dunduñu yaa ngi dëkk ci benn néeg yéen a ngi diis ci benn néeg ci condition yoo xam ne nii dangay dem foofu boo amee jom sax da ngay rëccu jëlaat ut billet ñibbisiwaat ñaata ñoo dem Europe ñibbisi di ko rëccu benn góor daf maa mës a wax benn bés ne ma dama bëgg a xam sama sama doom. Euh, fan la dëgg bi nekk entre ndaw ñi nekk fii ci biir réew mi ñëpp seen xel nekk bitim réew te man ndaw ñi ma xam bitim réew ñëpp koo ci waxal mu ne la dama bëgg a ñibbisiwaat ci réew mi fan la dëgg bi nekk ma ne ko dëgg baa ngi ci ñi nga xam ne nii ndaw ñi nekkoon fii xam fii ni mu mel dem fële dëkk fële ba pare ne dañu bëgg a ñibbisi ñooñu ñoo xam fi dëkk bi nekk parce que xam nañ ñaari réalité yi donc ñu nekk fii bëgg dem fële xamuñu réalité yi te ñooñu il faut ñu sensibiliser leen ne leen l'avenir et possible ici il faut permettre l'avenir loolu laa am lu mu si wax parce que c'est un travail de sensibilisation et les acteurs du secteur doivent porter ce message à l'endroit de la jeunesse sénégalaise parce que c'est des phénomènes yoo xam ne nii dañ ko war a mettre un terme merci beaucoup jërëjëf Abdou jërëjëf euh, Pierre ah, ancien directeur général bu euh, ANEJ agence nationale pour l'emploi des jeunes jamono ji nga nekk responsable APR ca Guédiawaye ñu nga lay gërëm bu baax. absolument maa ngi lay fay bu baax Pierre di am mbégte euh, teew fii tey ci plateau bi euh, waxtaan ci question yi nga xam ne ni question yooyu euh, loo xam ne nii yu am solo yu am solo et c'est dommage et c'est malheureux Euh, que des situations comme ça euh, mm-hmm. arrivent et lu metti la ah et je pense que euh, ñun ñëpp muy homme politique muy citoyen muy koo munti doon euh, dañu war a accorder une grande importance à ces question la e ñu ñu ñu ñu sur des solutions. ñu concentrer sur des solutions. d'accord merci beaucoup. merci donc mbokk yi fii lañu yem ak yéen ci euh, invité mi journée ñu ngi leen di jox rendez-vous suba ak jàmm jërë ngeen jëf.